cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi na Ahmadou Khadim di ñaan suñu taw taala mi nga xam ne moo man lépp mu sàmm ko ba yéen yim taxawee yi yim bëgg a taxawee yépp mu def ko ci dara cheikh Ahmadou Khadim ñu ngi siyaare cheikh Abdoulaye Mbacke yàllaay buur mi fi nekkal Serigne Mor Diarra di siyaare sëriñ Djili cheikh Abdoul Khadir mi fi nekkal Serigne Moudou Mamoun Serigne Ebo Rakam. di siyaare Cheikh Sidil Muxtaar mii fi teew teewal fi njabootu Cheikh Abdul Xaadir gi yépp ci njiital ci kilifam ci taxawaayu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ñaan suñu bu tabaaraka wa taala mu yàggal ko ci kanamu njaboot gi lool ba li ñu yéene def lépp ñu def ko ci barkab Cheikh Abdul Xaadir di siyaare itam. kilifa jataay bi Serigne mbakke Fadje moom moom mi nga xamante ne bii tey mooy xalifa Cheikh Asta Walo ak mboole mbokk yi nga xamante ne bii ñoo teew ci jotaay bi ñëpp xam naa ne liñ bëgg a waxtaanee mel ne Imaam Malick Baye Ndiogu genn kàddu soxna may googu rek doy na sëkk waxtaan mooy lépp ndax lépp luy njariñ mi ngi ci lépp luy njariñ ci jokk mbokk mi ngi ci waaye lépp luy lor ci dog ak mbokk itam mi ngi ci loolu doy na sëkk xam naa ne kon dañ waxtaane ci jokk mbokk ci tënk mooy lan solo ban la ko lislaam jox ak nan la wane ni noonu lañ ko war a defee ak nga nil yan lay yore gàllankoor yan mooy yi nga xamante ni bi xëy na dana tax jokk ak mbokk nam war a doxe xëy na du ni demee ak koo xamante ni bii difuloo ko suñ boroom daan yan la ne moom la lay teg su noppee loolu yëpp ñu jël ko jëmmal ko ci jataay bi Cheikh Abdoul Khadir mii nga xamante ni bi tey njabootam te ñoo waral jataay bi am diggante bi ak Cheikh Asta kon jataay bi waxtaan noonu lañ koy tënkee ñu xam ne ne kon buñ ne ak mbokk dafa yaatu mooy ci lislaam mooy képp koo xamante ne bi yéen a bokk diine waaye nag buñ ne jokk mbokk fii ca la gën a gàtt mooy ñi nga xam ne suñ borom moo boole ak mbokk ci wàllu baay ak luñ kawe kawe ak ci wàllu yaay ak luñ kawe kawe ñu ne mooy rafetal ci mbooleem ñoo xamante ni bi mooy xeet wii ma wax toppatoo seeni mbir di leen nemmeeku di xool ñu ci ne ci yitte nga taxaw ca ku ne ci njàqare nga fexe bam génn ci jàppale leen ci lépp loo mën ci di leen dimbali ci saam am buñ nekkee ci mbégte wala ñu nekkee ci loo xamante ni bi mooy aw naqar ak lépp loo xamante mooy lu mooy lu leen di jëriñ ci àddina ak ci àlaaxira soo ko xamee nga leen di ko wax suñu boroom tabaaraka wa nag jox ko solo bu rëy wax ko ay yoon ci suuratul baqara ci suuratul raadi ak ci suuratul xitaal yi fenn fu ci nekk wax na fa ak mbokk wax fa la ca nekk ci ay njëriñ wax fa la fa nekk ci ay lor wax na ne sama gaa yi nga xam ne ñoom xam nañ ne alxuraan karim dëgg la muy muy uru albaabi yi ba mu wax seeni melo ne gaay yi ma dal ko leen fooy mën a fekk lam ca teg dane mooy ñi nga xamante ni bii walladina ne ma amara allah bi ay yusal lool loolu la leen tàggee li ma jege nañu war koo jokk ci ak mbokk foo leen fekk dañ koy jokk fu mu toll teg ca dañuy ragal seen borom te itam dañuy bàyyi xel bu ëllëgee la may xool seeni jëf bu ñëwee ci sama kanam suñ borom digle ko digle goo xamante ni bi daf ko lëkkale ak ragal ko te nee na loolu moo tax doon leen ci kaw suuf ngeen jaamu ma jaamu nag sew Xarim xamal nañu ne ñaari xaaj la def lim digle bàyyi lim tere waaye nee na bàyyi lim tere moo gën a moo gën a rëy ndax ku baax rek moo koy bàyyi waaye lim digle ku baax mën na koo def ku bon mën na koo def sew Xarim loolu lañu ñu leeralal suñ borom nag jën ak mbokk lëkkale ko ak ragal ko ci suratul nisa mu ne na ngeen na ma ragal wattaqullaha allati tasaaluuna bihi wal arham na ngeen ma ragal de li ragal ma mooy la li ma leen digal lépp nangeen koy def li ma leen aaye na ngeen ko bàyyi ak lan mbokk gi ma doxal seen diggante na ngeen ma ci bàyyi xel xool leen aaya bi li ko suñu borom jeexalee inna allaha kaana aleykum raxiban xam leen ne nag li ma leen wax maa ngi leen di may bët di bàyyi xel suñ borom bu ngeen seetloo saa yu wax ay mbirum tere rek dana ko feddalee loolu ci alxuraan na nag feddali sàmm googu ak yitte woo ko donte sax duñuy jullit abulaas nee na alayhi salaam nee na inna ala abi layso bi salaam mooy wax sama kër bàyyi ñooñu duñ samay kilifa innama waliyallahu wa saalihul muminin waaye nag walakin lahum rahimun abulluha sama mbokk yooyu day duñ samay kilifa ndax duñuy jullit suñ borom mooy sama kilifa ak jullit ñu baax ñi waaye nag suñ boroom mbokk gi ma doxale sama diggante ñoom digal na ma sàmm ko te ba mu koy wax ñooñu ci tax muy muy wax booba dugguñ ci diine kon nag mbokk suñu borom daf ko sàmmlu asma doomi abubakar sadiq radiallahu anhu dafa am bis nee na yaayam fatiye la ñëw ci yonente bi seet si asma bis ko soxla asma dem ci yonente bi ne man de sama yaay dafay ñëw dis suma soxla te bokkul diine ndax sañ naa ko faj mu ne ko waawaaw bokku lim diine waaye bépp soxla bu moom ci yow na ko def ndax suñu borom moo la ko digal kon suñ boroom fonk ak mbokk daf koo teg fu rëy rëy Seydina Omar ibn Xattaab bis alayhi salaam daf ko may ab yére sartal ko ci ñaari sart ne ko mbubb mi bu ko sol ñaar ma mën a nekk mën nga koo jaay walla nga jox ko keneen ku ko sol Seydina Omar mbubb ma daf koo jël nee na sama mbokk yi ci kër baay yi nga xam ne dugg ci diine kere ñoom ñoo nee na ñoom laa ko jox kon ku ne xam ne ni lislaam kon ak mbokk daf ko fonk lu donte sax bokk leen diine alayhi tam xamal nañu naka lañ koy sàmme naka lañ koy jokkee la ci jiitu mooy nuyoo gën jaaneew silu arhamakum wala bi salaam rikk waaye na ngeen dox ak mbokk donte sax asalaamaaleykum képp ngay wax sa mbokk na ko def waxaat ñu leneen tasaafaxu ndey leen joxante loxo lan lay jëriñ mu ne yusibul xal day dindi ak mbañeel gi dox seen diggante waxaat leen tahaadu tahabu dee leen joxante ay addiya day taxu day waral ngeen bëggante yéen eh, eh, eh, yéen jullit ñi te loolu ak mbokk moo ci jiitu dee leen joxante ay addiya seen diggante suñ borom wax ko fu ne mais saa yu ko waxee ay mbokk la ci jiital wa aati dal xurba xaqahu lépp looy def nañ ci jiital ñi nga bokkal ba muy tagg ba muy tagg gaaya di di di di gaaruwaale yéefar yi chrétien yi ak siif yi naan leen birudu an tuwallu wujuhakum qibal al mashriq wal maghrib bu leen yaakaar ne rek jublu xibla chrétien yi wala jublu xibla siif yi mooy mbaax déedéet waaye biru mooy lii ba muy wax seeni melo dafa wax daf caa wax ne wa aatal maala ala xubbihi la wax alal ju bëgg ngay jël ñan nga koy jox dawil xurba ñi nga bokkal door caata ñam ci teg wal yataama wal masaakin ba mu jeex kon day wane ne lépp looy def ci lu baax na ci jiital ñi nga bokkal waaye nag dafa nekk lu metti lu tax lan moo tax lu metti sa mbokk mi nga bokkal da nga ko war a defal du génn mukk doon sa géwél déedéet mais loolu bakkan day metti ci moom bakkan bëggul loolu bakkan lu mu mooy da ngay jox kee dara bu génnee dëkk bépp yéeg defal nga ko bakkan loolu lay bëgg suñ borom moo bi muy wax joxe ne nañ ci njëkki ñi nga loolu mooy mbaax loolu mooy ñu xam ne itam ay ngëneel la bokk na ci tax suñ boroom jokk la tax nga am nga nga am ay salaam wax na ne ak bokk bi ko suñ borom bindee ca aras daf ko ne ama tardina an asile man asal man wasalak xanaa moos du la bégloo ku la jokk ma jokk la waax fa man xataak mu ne ko balaa mu ne ko laka dalika xanaa moos doo doo xanaa war na laa doy war na laa bégloo man sa boroom mi nga xam ne ku ne maay tànn fa ma koy dugal ku la jokk ma jokk ko ku la dagg ma dog ko mu ne ko ah kay mu ne ko loolu xamal ne ne jox naa la ko ak mbokk képp suñu borom ne ne képp ku koy jokk ne la wóor ne maa ngi koy jokk toog borom képp ku muy jokk sañ biir mooy lii lii lii Imam Malik bàyyi ñu ko wax léegi waaye suñu borom képp ku mu woon ginnaaw sa dara du dox kon ñu xam ne jokk ak mbokk ci lépp nekk wala itam dugg àjjana ndax gaa yi bi mu leen tàggee si soodu raad yi lan lan lan la mu jëlee dafa wax ni ñii day lahum uqba daar uqba daar mooy lan suñ borom firi ko jannaatu adnin yadxulunaha ñu ne ndax ñun dong la suñ borom ne déedéet wa man salaha min abaihim ndax doom yi dong la mu ne déedéet wa azwajihim ndax soxna yi ak borom kër yi rek la mu ne déedéet wa durriyatim seen sët sax dañ ciy bokk kon jox doog ko ak mbokk suñ borom nee na boo léegi bu ñu dugg àjjana ñii ñëpp laay boole kon dara melu ne jamono fii mu toll li ñuy wooyee at-tabaqaat al-ijtimaaiya famille bi ni ñuy ni ni ko jamono jamono di séddalee loolu moo tax mu jafe te barkeb Seexul Xadim bii def na ci lu bari dem nañ ba fi ñu toll nii kenn ku nekk Sëriñ Tuubaa may na la nga mën a toog ca la jox bu dee am am rek doo seeti kenn jamono ak mbokk suñu borom moo koy jël kenn ku nekk mu ne la ñii filaal fii ngay bokk loolu amul kenn ku tànnal sa bopp fa nga bokk loolu moom kuy kuy kuy sant sant sa borom kuy def leneen sa borom ko ko seqal mais ku ne suñu borom moo la tànnal boole la fa boole la fa ko sol bi mu leen boolee ba noppi nag genn mbokk gi la de nit ñi dañuy bari alal lool ñii ñàkk lool ñi bari daraja lool ñii ñii ñi ñàkk daraja lool ñi bari xam-xam lool ñi ñàkk xam-xam lool ñi am tur lool ñi ñàkk tur lool te muy génn mbokk différence yooyu nga xamante ni bii nag jamono moo koy indi yàq na lu bari ci mbokk gi te suñ mi xam lépp bu ñu demee ci suuratul xujuraat dafa wax ne yaa ayyuha nnaas inna xalaqnaakum min zakari wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaa'ila xool leen bu baax maa leen bind ngeen nekk góor ak i jigéen ngeen nekk ay ay nekk ay xeet yu wuute ak i giir mais xoolee añ la bi li taarafu la wax li taarafa la wax day mel ni cause bi mooy ngir war a xamante xamante nag mi ngi aman mi ngi mi ngi amee ci ñaar ci dox ak wax dox ak wax nag bu amee maanaam société bi ni muy séddalee mbooloo mi daa am lu muy créer suñ borom teel cee àddu buñ buñ toogee rek yëpp day feeñ suñ borom moo doxee noonu moo moo noonu ñi ëpp day feeñ ñu bari xam-xam day feeñ ñu am daraja day feeñ te ñuy genn mbokk suñ borom ne leen eh def leen ndànk de inna akramakum indallahi atqaakum yéen ñii génn mbokk yi mais ki ci gën mooy ki jaar ci li muy digle bàyyi li muy tere te bu leen fàtte ne ca sawtu anaam ne woon naa na leen wattaqullaha alladi tasaaluun bii wal arham kon xam ngeen yéen la ñan buñ fàtte seen bopp loolu kenn ku nekk war na ko di bàyyi xel dox ak mbokk dafa jafe da ngay ñëw seet ma xëy na du la jox yitte nga ne ah borom sàmm mi daal damay jaay ne daal nangam nangam boo léegi bu ma gisul mu doy da ngay ñëw seet ma xëy na ci ay xat-xat nga ma fekk yitte jëma la daan jox joxoo ma ko nga jàppale dama laa yëgut nga dem toog du ñëw. da nga ñëw seet ma xëy sax gaa man sa mbokk laa waaye aw ma yitte ji nga am joxuma la yitte jawar nga ne ah Sam daal day jaay ñàkk mi boo gi su ma gisul mu doy yooyu mbir la yoo xam ne bu alayhi salaam buy digil tuyaaba yu bari dina ci dox ak mbokk la ko waral mooy dafa nekk lu jafe yombut dafa nekk lu jafe yombut. ñu xam ne itam suñ borom tëkku na lool ñi nga xamante ne bii duñ dox ak mbokk rawatina ñi nga xam ne dañ koy dagg. la ci mooy nee na ñoom ëllëg nañ xam ne sama rëbbu mi ngi leen di xaar te nañ xam ne maanaam mujj gu bon ëllëg ma ngi leen ndax ba ba muy tàgg gaayam yi rek ba mu jeexalee rek ñoom ñoom la ca sof walladina yaxuduuna ahda allahi min baadi mithaaqi wa yaxtawna ma amara llahu bi an yuwsal wa yufsiduuna fi l ard te li ci yées nee na gaay yi nga xam ne duñ dox ak mbok luñ la wax génn ci gisoo baat bi mu ci teg muy yàq yu si doon fil ardu fu mu waxee dagg ak mbokk rek maanaam moom la ko lëkkaleel ci Baxara moom la ko lëkkaleel fii ci Raad moom la ko lëkkaleel boo demee ci Xidaal moom la ko lëkkaleel. faala asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum daal ne daal ne lu leen di xaar fële nee na ulaayika alladina laanahum llahu na leen wóor ne sama rëbb mi ngi leen di xaar lan ngir lan. fa asammahum wa ama absaarahum ñaar dal na leen ñoom tax nañ ba duñ dégg dëgg gumba nañ ba duñ gis maanaam ak njub nee na ñoom ëllëg sama rëbb muy mbugal kese moo leen di xar boo demee fee itam caraa di loolu la ci teg loolu la ci teg kon nag yaakaar naa ne loolu kenn ku nekk war na ko moytu bu baax te xam ne dox ak mbokk moom suñ borom li mu bëree ay tuyaaba noonu la bëree maanaam ay tëkku dëggu mbokk moom alayhi salaam nee na daan délai délai ba gën jaa yàgg nee na ñetti fan laa leen may ñetti fan laa may ju mbokk ñaari mbokk yu dëngoo ñetti fan laa leen may ñu juboo nee na bu ñu juboo na nañ xam ne ñoom pare suñu borom pare na ci ñoom nangoo seen genn jaamu yàlla loolu yaakaar naa ne kenn ku nekkoon na ko bàyyi xel kon fii ci mbooloo mi képp koo xamante ne bii am nga ak sa moroomu mbokk sa moroomu mbokk aw dig soo xëyee wala boo jógee fii na ko na ko daan jeexal jeexal ga la alayhi salaam nee na na ngay tàmbalee ci nga ne ko asalaamaaleykum jox ko loxo nee na ci lay tàmbalee. kon ñu xam ne jokk mbokk suñ borom moo ko digle muy farata suñ borom ne képp ku koy ku koy def am nga sama yërmande. képp ku ci nekk ëllëg sa àjjana man ngaa maa ko garanti maak say doom ak say soxna ak say borom kër ak say sët képp ku bëgg am wërsëg nee na moo ci gën a gaaw ku bëgg am njaboot nee na moo ci gën a gaaw ku bëgg am dund gu barke moo ci gën a gaaw ku bëgg ma fayal la maanaam deegu ñaaw nee na moo ci gën a gaaw waaye itam man xam ne suñ boroom nee na dog ak mbokk mooy liy delloo maanaam jëfi jaam yi ba duma ci nangu dara lii ñuy wax nag bari na baraay boo xam ne ay tënk lañ ciy joxe waaye li ñuy wax lépp ci mbaax lépp luñ fi wax ci mbaax caana mi doxuk mbokk toppatoo yëg nemmeeku taxaw boo amee mbégte taxaw boo amee naqar boo nekkee ci njàqare soo nekkee ci xat-xat mën naa ne tey daje bii tey sëñ Sidi Moxtaar sëriñ Sidi teew fii tey moom njaboot Cheikh Abdoul Khadir fekk si njaboot Cheikh Sawalo mën naa ne loolu symbolisé na lépp tey ngir lan Cheikh Abdoul Khadir Cheikh Sawalo ak mën naa ne Daaru Salaam gii ñu ko defee maanaam muy muy muy sëriñ Modou Mamoun man naa ne ñoom ñenn lañ duñu ñaar si astawaalo Cheikh Abdoul Khadir liñ bokk ci côté maam ci côté maam Mor Anta Sali kenn du ci wax ñëpp a ko xam Cheikh Abdoul Khadir Cheikhul Khadim maam Mor Anta Sali Cheikh maam Mor Jaara maam Mor Anta Sali loolu moom du lu ñuy wax ñëpp xam nañ ko waaye bu ñëwee ci seen côté waajur wi nga xam ne mën naa ne tey mooy li gën a waral jataay bi tey fii ñoo bokk lépp ñu nekk ay mag ak i rak seen waajur yi nekkoon ay mag ak i rak Cheikh Abdoul Khadir doomu Soxna Aminta la Soxna Aminta Kandi Soxna Aminta waajuram Soxna Kandi Aïcha la moom suñ maam moor Dieye moom maam Ibrahima Awa Niang moom maam Maaram waaye Cheikh Sawalu itam soo jëlee côté ak soo naa Sawalu seen digganteeg Sëñ bu soobee itam ñoo ko bokk du am lu ñuy wax Cheikh Abdoul Khadir Soxna Aminta Sëriñ bu soobee loolu tam ñoo ko bokk du lu ñuy wax. Fia Sawaalo Soxna Sawaalo sëriñ Moussa bi loolu tam ñoo bokk lépp ay mag rakk lañ mais boo jëlee aussi itam côté yaayu Fia Sawaalo Fia Sawaalo Soxna Sawaalo Moussa waajuram soxna ma jigéen Kebe mooy yaayam soxna ma jigéen Kebe soxna ña nga Mbàkke moom Amadou soxna Moussa moom ma maaram mooy yaayam ñu nekk ay mag rakk ci côté yëpp côté yëpp. buñ jëlee itam sëriñ Modou Mamoun mii nga xamante ni bii tey danañ ci ñëw bokk na ci li waral jotaay bi ñu defee ko fii ci Daaru Salaam côté borom gaawaan benn lañ sëñ mu ma ngay wax borom gaawaan Mamour Anta Sali ay maga rek rek la ñuy doon waaye même boo jëlee côté boo jëlee côté yaayam soxna Buri Mbàkke moom Mam Fati Balla Suxra moom soxna Aïcha Balla moom mam balaay sama moom mam maaram ñii daal ay mag a rakk lañ côté boo leen jaare nag ñoo bokk lépp waaye jataay bu demee nii njabootu Cheikh Abdoul Khadir di fekk si njabootu Cheikh Sawaalo ñu defe ko Daaru Salaam yell na ngir yu bari mbokk gi kon xam ngeen ne ko leer na ci ñëpp buñ fàttee ne Serigne Moudou Mamoun mais moo yoroon soxna may mun a mi ngi nii waa këram yaa ngi nii di ma dégg buñ fàtte ne Cheikh Asta Walo moo yoroon suñ maam soxna mbake moom moom moom borom gaawaan ñu ngi nii di ma dégg buñ fàtte ne itam Sëriñ Moodu Maamun moo yoroon fii soxna Astu moom borom saam ay sëtam ñu ngi nii toog ci baas bi Cheikh Bachir mu ngi nii toog sama wet buñ fàtte ne itam Cheikh Asma Wala ci boppam digganteem ak Serigne Modou Mamoun ca Cheikhul buñ ko fàtte mu yarandoo leen ñu bokk ay at ay 1986 Cheikh Asma Wala moom la Serigne Modou Mamoun ñu ngi wax 86 ñu naan 86 ñu naan 88 mais ay moroom lañ. ñoo yaroodoo kër Cheikhul Khadim daal bokk benn lal nekkoon benn jaxasoo lool jaxasoo gi kon yaakaar naa ne duggante bi feeñal na ko mu daan leen liggéeyloo daan leen yar ci alxuraanul karim bind ay kaamil ñoom loolu leen duñ def loo kon yaakaar naa ne waa kër Cheikh Abdoul Khadir fii jëmmam ci boppam itam ñëwam ci Daaru Salaam ñëpp xam nañ ko fii ci xilaaf ak sëñ Modou Rokhaya ñun ñii ñëpp fekk nañu fii fii ba ay fan la fi daan am daayira ba fii yaakaar naa ne ñu bari mën nañ koo seere daayira bi dafa am bis mu ñëw ñu jox ko ñi ci bokk muy jàng di jàng baax ci ku ñuy wax euh, neexu mu ne noonu mu doon waxee rek ah, ana neexu mu jóg taxaw mu nekk ko seen tur yi boo léegi moom ngeen di dekkee ca ca àjjana te neexu kenn du ko dekkee dama laaj noo tudd te ak ak yitte ji kay ca déwén sa mu ñëwaat bàyyi sëñ ngeen mi jox ko liste daayira bi mu jàngaat ba ci agsi ana neexu mu jóg neexu daal taxaw daal ne sëriñ bi laaj naa sama mbokk yëpp waaye nee neexu rek lañ xam daa bëgg nga wutal moom tur mu nekk ko tudd naa la Fatimatu bintu Rasul ñëpp seere nañ ko fii ci fii fii fii ci Daaru Salaam ci Abdul Xaadir ci boppam Daaru Salaam daf ko defoon këram ngir yu bari kon yaakaar naa ne njabootu Cheikh Abdul Xaadir buñ fekkite njabootu ci Sawaalo ñu defe ko Daaru Salaam yi lay bari na bari na lool yi lay bari na lool waaye loolu loolu rek lañ ci joxe Cheikh Abdul Xaadir ci boppam mii mën naa ne xëy na gaa moo ko Cheikh Sawaalo sore nañuy at si Abdul Xaadir ñu ngi wax 1914 kii 1886 sore nañ waaye mën naa ne ñoom di xaw ma nuñ nekkee woon waaye la si Abdul Xaadir di moom mii ni mu nekk woon ak jaboru si aswaal moom xam naa ko te yaakaar naa ne liñ ciy wax ñi fi nekk ñëpp war nañ mën nañ koo seede mën nañ ko seede bu wér dañuy tàmbalee rek ci bàyyi suñ mbàkke faajama bàyyi suñ mbàkke mi nga xam ne maanaam mooy taawu ñu Cheikh Tawaalo diggante ak Cheikh Abdou Khadir man naa ne soreewuñ caay at Baye si Mbàkke ñi ngi wax mille neuf cent dix-huit ñi wax mille neuf cent seize kon moo Cheikh Abdou Khadir soreewuñ waaye buñ demee ca Gédé kër Serigne bu Bousso kër nijaay Cheikh Abdou Khadir kër maamis Baye sëriñ Mbàkke Fadiama ca daara ja ca la ànde woon ak moom nee nañ dañ daan dokk benn lal waaye bi mu xamee ne kii doomu Cheikhul Xadima ci la dalee ci la tàmbali di tëdd ci suuf ngir màggal ko di taxani di ko taalal eh, jamonoy sedd di ko attaayaal di ko jeexaatal gerte di ko defee li caaf ñu koy boole attay boobu dëkk bi neexul di jógee gede di dox di ñëw ci kër soxla aminta booba gede eh, dëkk ba naqari na lool ngir wut luñ mën a jëfandikoo di ko yët kon ba ñu àndee yàgg na ci démb la woon waaye yaakaar naa ne àndu démb googee Cheikh Abdou Khadir fay na ko mën naa ne fu ko bàyyi suñ mbàkki faaje ma teg teg na fa fu ko raw ak njabootam te loolu ñii ci baas bi ñëpp mën nañ koo seere bàyyi suñ mbàkki faaje ma moom daa doonoon lépp Cheikh Abdou Khadir daan yu boppam bàyyi faalu Seydina Jiili la daan wax daan wax bàyyi faalu borom baax moom bàyyi faalu Cheikh la doonoon am solo dafay bàyyi si Mbàkke Faal mu wéradi ne du dem du seeti benn docteur ñoo wax ko Cheikh Abdoul mu ne danaa ko defal loo xam ne ab sëriñ mënulu ko ko te docteur mënulu ko ko bàyyi si Mbàkke ñëpp xam nañ ko xanaa hôpital ba mu fa demee mooy mooy mooy wéradi gi gi mu génne jamono ñëpp xam nañ ko fonkoon ko lool suñ suñ Cheikh Ndiaye xarit bu so day nekk dafa am bis sëñ bi xaalis dafa jul dafa julli fajar ba sëlmal si jaana bi mu toogoon da ko jox ne ko foo ko mën a fekk yital ma ko si ndàkk faajama nee na booba mesare sori na àll bi ab àll dëgg la mu topp mu topp fajar gi ak àll bi di dox fekk si ndàkk faajama mi ngi fekk mu toog di bindi alxuraan karim noonu mu mënoon a noonu mu ci meloon mu nekk sëñ bi xaalis jilaani moo jox si jaana bii ñuy wax ci Abdul Xaadir ñi naan ndax yu alayhi salaam lañ ko tuddee ci lu leer lu jóge ci gémmiñam moo ne munaasaba bi danaa ko andi booba ngir rek taxaw taxaw kasi ak faajam ci la doonoon booba kim xeela woon mi fii ci baas bi di ma dégg Cheikh Fall jëlabaatu baas bi ak faajam moom moom soxna xar yi dafa amoon booba ngénte booba ma nga bitim réew ñu wax ko ba ñu wax ko Cheikh Abdou mu taxaw lépp daal ne nañ ko tuddee maamam si asawaalo ñu ne ko moom kat waajuram sax suñu seex moom lañ ko tuddee mu ne ah kooku de kon ñoo bokk ñoo bokk turandoo Cheikh Abdou moom la ñuy tuddee mu ne kon kooku bokk turandoo ndax ma ndax ndax Cheikh Abdou Jilaani maanaam moom lañ ma tuddee daan ne lañ ko ko tuddee da koy wooyee maam Cheikh ni Cheikh Fall ngi nii di ma dégg ni mu taxawoo njabootug Cheikh as Cheikh lañ man la wax du dafa guddi waaye bàyyi si ak faajama loo ne lañ ci maaw diggante Cheikh Abdou Khadir njaboot gaa ngi ñëpp mën koo seere soo ñëwee ci bàyyi Serigne Gédé loolu loolu nga fiy fekk doonoon léppam doonoon Serigne Mbaye Serigne nee nañ bàyyi si Mbàkke faajama mooy ku sant Mbàkke ku ñu xam ku njëkk a jébbalu ci moom ab junni buñ takk nee nañ moo ko njëkk a jox Cheikh Abdou Khadir Jilaani addi Cheikh Khadim boobu dëkk bi neexut jamono ju neexut ngir rek def ko mu seexul xadim def ko léppam diggam ak Baye Serigne Guédé mii tey boroom kër gi loolu lañ ciy wax fu ne la ko féetoon doonoon léppam waxtu yu moo guddi moo tax détails yi duñ ko mën a indi xam ngeen ne ba mu koy tànn di ko de di ko jox imaam gi 1984 booba ñu baree ngi fi. waaye moo xam lu tax mu tànn ko def ko imaam euh, jumaa Cheikhul Khadim gi ba tey naafila gi Serigne Fallou moo ko yore ba tey génnul kër gi loolu moo xam lu taxaw mu def ko ginnaaw bu mu di soog bàyyi Serigne Mbacke Fadiama féete ko fu nekk féete njabootu kër sa maam ak sa nag laa wax fu ne daan joxe benn loo xamante ni bii benn munasaba euh, maam ak sa bu soo di waajur moom sëñ Mbàkke bu solo fii néega maa nga ne ngeen di seen dafa am bis moo bàyyi sëñ Mbàkke bàyyi sëñ Mbàkke Fadiama ne ko dama la yónni ci Cheikh Abdoul Khadir te boo demee bu fa defee ak daanukat li ma la wax nang nga ko waxee nii nee ko yàgg naa fi lool lee ma am téeméeri at muy wane ne boobu dem jot na nee ko yàgg naa fi lool lee ma xam naa ne na nañu ci rusuy sëriñ Touba ji rek moo ma fi bàyyi loolu lan moo ko waraloon sëriñ bi bi mu demee ci géej gi ba ñu bisee son fati balla suñ borom da koo nattoo njaboot xam ngeen ne ñetti doom yu jigéen laam soxna ja Touré mi Cheikhul Khadim yoroon soxna fati ji kanam gaa ngi nii ñu jàkkaar lool néegam yaa ngi nii ngeen di seet muy muy muy menn mooma képp ak moom foofu soxna Marema sëñ Mbàkke Buso lañ ko joxoon maam Asu Buso képp la fa am xamu ko daal di génn àddina soxna Buri boroom gaawaan lañ ko joxoon sëñ Mur Maamun mii képp la fa am génn àddina xamul waajuram ñoom ñaar soxna Marema ak ak ak ak ak kii maam Asu Buso ak kii di sëñ Mur Maamun maam Fati Ball moo leen nàmpal xamuñ seen yaay kenn mësu koo dégg muy karaam ak Cheikhul Khadim keroon nag bi bi bi sëñ Touba jógee ci géej gi ñibbisi maam Fati Balla daa ànd ak maam Massa Bousso yóbbu ko ci moom sëñ Touba ak ni mu fi bi mu ñëwee daf ko ne ah bàjjan bàjjan la ko wax bàjjan dem nañ ci tukki bi ba ñibbisi di day ah, moom la fi mare ma bàyyi suñ tubaa nee na jël loxoom teg ko ci loxo maam Asta Bousso ñaan daal ne ah, ñaan suñ borom ko ndax mu ndax ndax mu bàyyi ñu ko fi maam ne seebul xaadir nag waxee suñ tubaa jooju moom fi bàyyi waaye dem jot na lii bàyyi suñu bàyyi faajam la ci moom ab si jaada la ko jox ak i bagage taxawuñ maam daal di wujji boromam keroog bi mu wujjee boromam booba see see ab daal mooy xalifa waaye bàyyi da ko mu ne ko kooku seebul xaadir moo yor ay mbiram ba mu ci waxee moom daf ko ne ah sëñ Abdou Khadir da nga xam ne sëñ moom sëñ Abdou Khadir moom la defoon léppam moom la defoon mu defoon am Serigne Touba mu ñëpp xam ngeen ko. daf ko ne ma magi Serigne Touba yi fañ liggéeyale seen boroom fa lañ leen di añale kon nañ ko ne ci Daaru Salaam fa lañ liggéeyale Cheikhul Khadim loolu moo waral maam yu buñ ko mbàkk xewri yu buñ ko musoo bi fii lañ ko ci keroog Cheikh Abdoulaye moo ñëw ak Cheikh Xaadir taxaw ko fii kon loolu liñ ci mën a wax bari na waaye waxtu yi moo ñu ko mayut soo ñëwee Baye Sam itam noonu noonu la ko jàppee woon doon léppam xam ngeen ne Baye Sam asolo moom ñëpp Cheikh Xaadir lañ ko xamee yëpp xam ngeen ko. diggam ak Baye Serigne Ngere man mii doy naa ci seere te kër gi ku ne man doy na ci seere man moom la ma joxoon moo ma dalal baasin miim kër Serigne Asal bu sa gama nekkoon moom ma fa yóbbu. bi fi Asan desee ma desee Màkka booba mbaakol la ñu woon maag sëriñ Abu Buso mee toog ñu jël si ñu andi ñu jàngal ñu fii bañ mokkal bañ mokkalee Seydu Xaadir Mbàkke la la ñu yóbbu maag si ngeen taaw am di ak suñu aboo mii bind ay kaamil sëriñ bi jébbalaal ñu ci moom rasmi yem mu dénk ñu ñetti baat yu gàtt maa ngi leen di dénk na ngeen nangoo jaamu yàlla nangoo liggéey te moytu tooñ ñetti baat yi képp la Cheikh Abdou Khadir wax daan ne nañ leen yóbbu ñu jàngi xam-xam booba sëriñ ngi koy seere daan ne nañ jaamal ba mu yàgg noonu mu ànd mel ne koy wax ak mu xool ci kaw daan ne déedéet nañ leen yóbbu ko sëriñ Abibu xam moo xam lu tax mais jaamal la njëkk a wax daan nañ leen yóbbu ko sëriñ Abibu ñu jëm ci seexu naa sëriñ Mamour Seye moo ñu yóbbu euh, man bàyyi sëriñ Guédé musuma jënd benn téere téere xam-xam boo mosaan Cheikh Abdou Khadir moo ko jënd maa ngi fàttaliku bis booba maa ngi war a jàng Shuara bind ko lettre sëñ Maam Mor Seye laa ko di tàkku saa noonu mu daan waxtaan lettre arabe laa ko bind sëriñ bi di ko jàng di ree bég am na baat bu ma wax xam naa ne man sama jàng gaa sëriwut waaye waxi Cheikh Abdou Khadre daf ni ma laa ko da fuuka yéen jàng arab ci ma xam xam ngeen baat boobu loolu la ma wax di ree ñaanal ma bég lool kon ni mu taxawoo njabootuk sëriñ Gédé googu itam kër sëñ Mbàkke kër goo dem noonu la fa mel bàyyi sa bàyyi sa mii may wax seeral la ko seere yoo xamante ni bii seere lu ko ñeneen muy ñaar yu ëpp solo ci nit muy muy lislaam ak ngëm daana wax sëriñ Saam ko am diine la ñu bari daanañ ko fekke daana wax la itam mooy ki gën a niru Cheikh Sawaalo ci njaboot gi daan ko seere itam dëgg sëñ Saam lu mu wax dëgg la loolu loolu Cheikh Abdou Khadre yàgg na ko seel ñëpp xam am na lu ñu ci mën a wax benn munaasaba booba dafa am sëñ seex May daa am yitte bu mu amoon ci Cheikh Abdou Khadre yónnee woolu baay Sam ne ko dama bëgg nga demal Cheikh Abdou Khadre ngir lii Baye Sam ne ko ah, sëñ seex May ni nga demal Cheikh Abdou Khadre di ma doxaloo ci moom it mu ne ma xam naa li tax ma wax la ko demal rek dem wax ci Cheikh Abdul Xaadir ba mu noppi mu ne ko sikkuwut de yow da loo wax dëgg la daal di ciy taxaw nu kawe njort loo xamante ni bii sëñ Cheikh may séntu ko woon noonu kon loolu loolu dañuy wax ne mën na ne ci sëñ Mor Jaar la ko jëlee loolu melo yu bari ñooñu ñu xam nañ leen ci bàyyi am di miin euh, foofu la ko tegoon noonu la meloon. joxoon na ko si jaara boo xamante ni bii ñëpp xam nañ ko ak moom Cheikh Abdou Khadre moo ko joxoon am na bis mu ñëw seet si ko fekk fa suñu muur booba mi ngi fii mu ne ko ah am di mi ndax ndax mi ngi la jox sagari njaam bàyyi mu ah ah joxaguma ko de mu ne ko ah war na ko de nee na bàyyi ba bàyyi ba ba sëñ kii sëñ Moodu daa xotti yére yu mat daal di koy indi bàyyi am di loolu safoo ak wane ne mbokk benn la moom la ci woon am na bis bayaan bi seedul at woo ko nekk booba daa am ngan yu mu daan defal euh, sëñ wut bu sa jàng ne ko demal ma ci sëriñ bi mu mu tànnal ma bis buñ fa war a dem ba mu ne ba wax ko Cheikh Abdoul Khadir mu tànnal ko bis bi ne ko nag bis boobu bu jotee euh, daa bëgg nga ñëw ñu ànd kenn ba mu ñëwee moom ak moom ñu bokk oto mu ne ko maa ngi lay xamal ne maa ngi lay ñaanal de que sañ moor gi de barke kenn du la ko fi ëpp bàyyam yaakaar naa ne ay millions ba mu koy am ay millions xewut kër gi ka si Mor Jaara gi lépp lu fanaan fa daan def moom jëmam képp mën nañu moom mën nañu maanaam moo ko daan def taxawaay bu ne taxawee nag xam ngeen ko fii kon yaakaar naa ne te lii may wax nag noonu taxawoo góor ñi doonoon seen baay doonoon seen nijaay ñoom ñooñu waaye doonoon tam suñ maam njaboot gi yëpp nag muy góor ñi muy jigéen ñi jox dox ak mbokk moom Cheikh Abdoul Khadir ni mu xamee ak mbokk noonu la ko doon doxe mbaaxam taxoon na moomoon na ñëpp gis nga nit ñi ni ñu bëggee Cheikh Abdoul du seenu mbaax de jikko mbaaxu Cheikh Abdoul Khadir moo rëy ba nit ñi xamul nu ñuy def lu may fayee ko lii faye ko bëggu képp moom moom lañ mënoon kon xam naa ne waxtu wi guddi na dañ doon def ay kàddu yu gàtt rek ci ci jox ak mbokk ak sant bu baax itam si Sidi Mokhtar Serigne Sidi ci xalaat bii nga xamante ne bi maanaam moom lañu am jël cër bi sédde ko Cheikh Asta Walo ngir nemmeeku dox mbokk geemoon digganteem ak Cheikh Abdul Xaadir Jilaani nekkoon nag ak rak bokk ay tur nekk ay mbokk nekkoon ay xarit loolu lépp tax ñu taamu woon ko dox mbokk googu taxoon nañu jël bis bi tuddi ko ko kon ci turu Baay Sëriñ Mbàkke Faajama mii ngi toog xalifa Cheikh Sawaalo ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm bu baax desant sant mboole mbokki Daaru Salaam yi toog xam ne bis bi yi tax daje tax na ñu defe ko Daaru Salaam ji ngir anam yu bare yooyu mu tudd ak yeneen yoo xam xamante tudduma ko di xam le ne lépp loo xam xamante ni bi maanaam xëy na gàtt na ci ci man la waaye bëggoon nañ ma defe ko neneen xëy na waxtu bi xat na dox mbokk rëy na liñ ci mën a wax bari na waaye nag euh, in uridu ilal isaa ma sataatu waaye wa ma tawfiqi illa billahi ala tawakkaltu wa ilayhi unib hada wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum